Sénégal li fi am ci seetaan jéggi na dayoo saa su nekk ngay dégg ay taax yoo xam ne dañuy nërmeelu te ca booba maire yi préfet yi ak direction de la protection civile ñoom ñëpp ñu ngi ko dee gis boo duggee ci Medina comme ni ñu fi ñëwee amul benn mbedd boo xam ne dinga ko dugg ba génn lu dul ne di nga fa gis taax moo xam ne bu yàlla deful sutura bu màbbee li muy fàtt ci ay doomu aadama kenn du xam nu muy toll saa su nekk ngeen dégg taax yi di daanu ay doomu aadama di ci faatu ba léegi ñi nga xam ne ñoo yilif réew mi jëluñu ci seen matuwaay yi nga xam ne moom moo war ndax léeg li nga gis taax moo xam ne ëpp na téeméeri at ñu koy ñëpp ñabal di taf yëngal ca booba boo fa demee gis ñu taf fa autorisation de construire la faute à kii ana kan moo war a jël ndogal ngir lii kat daal di dog ndaxte bu fekkee képp ku nekk ci ñun seetaan na lii am kenn bu ci mucc